voilà am nañu victime déjà victime baa ngi def appel au secours ak li ñuy woowee agitation à la surface waaw mu ngi woote pour ñu ñëw dimbali ko ah, heureusement que sauveteur bi àgg na àgg na ci moom jàpp na ko téye na ko voilà li lii la ñuy woowee remorquage on mu peut koy remorqué mu ngi koy dispositif flottant de sécurité pour que mu nekk à la surface bañ a 2017 nous avons 88 décès par noyade ñu 2018 plutôt am 99 cas de décès 2019 nous avons 76 cas de décès par noyade donc avons en 2020 nous avons en Covid bi 69 décès par noyade ñu 2021 nous avons enregistré 143 décès par noyade mooy donc 2022 nous avons nekk euh, Dakar. Dakar rek enregistré na 32 décès par noyade bon bu dee ne Sénégal la nag Sénégal gi yëpp am nañ 89 décès par noyade bëri na trop bilan bu catastrophique la bilan lu boo xam ne ñun de en tant que association des maîtres en tant que acteur yi bi nga xam te ne dañuy lutter ci cadre noyade yi déploré nañ ko bu baax a baax

voilà donc ces plages-là, la surtout au niveau de la banlieue donc nous commençons commencé euh, euh, euh, Cambérène ba ba bon bien sûr parce que la grosse nous nous ñu enregistré vraiment le mat Nous nous plage na benn victime boo xam ne gis ngeen léegi la lab voilà li tax mu lab mooy euh, si zone de baignade bi la nekkoon waaye rocceeku ne day nuuru xam nga donc dem ba gis boppam ci biir bayin bi bayin bi mooy canal bi canal bi nga xam ne dafa dangereux moom la ñuy interdire donc mu gis boppam après si la commencé yuuxu gis ngeen intervention bu gaaw bi maître nageur def donc ba mën ko sauver. bu ñu tegee ay balises donc ne la fii la ñu délimité zone bi waroo ko dépassé. parce que soo ko dépassé dugg nga si zone interdite de loolu loolu je pense que du yombalal suñu liggéey yow tamit du doon lola arrangé yow mi nga xamné ne yaay kat bi. goudi ñun duñ ko duñ ko surveiller plage 7 sept heures la ñuy am si ngone te du duñu dóor ñu wax kenn dara dañ naan laan rek génnal et puis conscientiser la par rapport ak li nga xam te moo tax ñu naan la génnal léegi nag soo soo génnulee ñu ne la fiy bàyyi dem suñu yoon léegi nag su fekkee ne da nga fiy lab du kenn mooy responsable ku dul yow. nekk nañu trois cent deux membre ñoo xam ne ñu actif lañu voilà mais ñi si ñi nga xam te nag ñoo ñoo ñoom ñoo ñoom ñooy liggéey ca mairie de Dakar recruté leen quatre vingt trois euh, personnes lañu te loolu xam nga ak par par rapport ak trois cent deux dafa dafa néew. am formation yo xamné ne ñoo pompier sax ñokay bok amna am yo si ne euh, ak la fédération sénégalaise de natation et de sauvetage moi-même qui vous parle man mi di wax ak yeen sax am formation yo xamné damay anglais yi ñu ñëw former former ñu fi def nañ formation yo xamné ne français sapo pompier français yi ñu defal ñu defandoo formation open arm yi nga xamné ne espagnol yi aussi ñëw nañ defal ñu formation donc ñu xarañ lañ ci mbir mi ñu liggéeyu euh, géej bi.